dañu koy tàmbali ak sleep sleep mooy nelaw nga xool exemple yi ci photo yi sleep mooy nelaw ba mu ne I am sleep yi mooy dama gëmmentu ay am going to sleep maa ngi dem nelaw yi am going to the bed mooy ba léegi maa ngi dem tëdd yi mooy maa ngi dem ca lal ba am going to the room maa ngi dem ci néeg ba snore mooy xaral I can't share the bed with you because you snore mënuma bokk ak yow lal de ndaxte da ngay xaral rek I can't sleep next to you mënuma nelaw sa pegg you know I can't share the bed with you share bed mooy bokk lal sneeze sneeze mooy tisoli it's tisoli my nose is tickling that's why I am sneezing sama bakkan bi day xasan wala day dégg nga day ña loolu tax mbayti sori mais takkaw mooy cax-caxaan ok shake shake mooy yëngal fii nag dañuy jox exemple comme niñ koy utiliser ci loxo don't wave me wala at me come and shake hands with me kaay nga jox ma loxo bul ma sëri loxo kaay nga jox ma loxo eh bul ma yëkkati loxo de kaay nga nuyu ma jox ma loxo Scratch my wakoto, my wakoto. I am scratching my head. I need to take shower. I think I'm dirty, eh? maa ngi wokku sama bopp bi dama war a sangu de I am dirty mooy dama tilim I think you know I have to take a shower sniff sniff mooy xeñtu xeñtu wala fóon dara ok You are sniffing the spoon. Huh? What, what were you eating? yow yaa ngi xeñtu ko digg rek lan nga doon lekk. You are sniffing. Sniffing. ok sleep mooy tarxiis sleep sleep fall mooy daanu sleep mooy tarxiis it's raining exemple ma ne it's raining be careful before you sleep mi ngi taw de defal ndànk bala nga daanu it's raining mooy mi ngi taw through through mooy sànni dara mu jóge ko ci yow sànni exemple ma ne throw it away don't bring it again sànni li fële bul ko indiwaat de bul ko indiwaat throw it away mooy sànni ko mu sori don't bring mooy indi bring mooy indi don't bring mooy bul indi hurry mooy yàkkamti hurry bu mu ne xorya mooy yàkkamti maanaam gaawal ayam yi na xor yi mooy dama yàkkamti gaawal dama yàkkamti xorya mooy gaawal ay am ina xor yi mooy dama yàkkamti ay am in a xor dama yàkkamti eat eat mooy lekk comme ma ne I am hungry I'm going to eat. I'm going to the restaurant to eat. I'm going to uh, to the house to eat. You know, I'm going to the shop to buy something to eat. Dama xiif maa ngi dem lekki. I am hungry. good drink moom mooy naan exemple si ma I am thirsty I am going to drink dama mar maa ngi dem naani I am thirsty dama mar I am going to drink maa ngi dem naani I need something to drink dama soxla lu ma naan swallow swallow mooy wan swallow food dégg nga swallow food mooy wann ñam léegi beneen exemple uh, swallow your pride and let me know need wanal sa rëy rëy ji te wax ma li nga soxla maanaam bul rëy loo soxla rek wax ko if you can do it we can do it ok ciw mooy sàqami chew mooy sànqar bi fa la chewing gum bàyyi ko ok chew the fruit before you swallow it wala before swallowing it sànqar mi ñam wi balaa nga koy wann swallow chew cry cry mooy jooy cry cry mooy jooy what are you crying my phone is stolen lan ngay jooy yow ah sama téléphone lañu sàcc my phone is stolen my phone is fallen mooy dafa rot dafa wadd is stolen mooy dañ ko sàcc laugh laugh mooy ree laugh mooy ree ree what are you laughing why are you laughing what makes you laugh ok I am happy lan ngay ree lan moo la reeloo lu tax ngay ree ah dama bëgg dama kontaan smell mooy mooy xeñtu dara xeñtu dara ok exemple ma smell that bottle and tell me what was in it waaw xeñtul bouteille bi nga xool ko bu baax a baax waaye bu paree nga wax na lan moo nekkoon ci biir ok hold hold hold mooy ngëb mooy ngëb téye hold exemple ma ne hey hold my hand you know let's a cross hold my hand hold my hand hold my hand ngëbal sama loxo ñu jéggi cross mooy jéggi tekki cross the road shout mooy yooxu shout shout wow okay I can't hear anything you are shouting next to me you know mënuma dégg dara yaa ngi yooxu rek sama pegg you are shouting mooy yaa ngi yooxu stop shouting mooy bàyyil yooxu don't shout at me bul ma yooxu whisper whisper yootal wala day exemple ma ne a I heard them whispering each other wala in the room dégg naa leen ñuy yootalante dégg naa leen ñuy déyante I would like to whisper something pinch mooy dompat pinch pinch pinch mooy dompat exemple ma ne she pinched me when we were fighting he daf ma dompat ba ñuy xeex that's why I'm crying yi daal daf ma dompat ba ñuy xeex slap slap tar slap mooy pes mooy mbéj slap mooy dóor ci lex loolu mooy slap exemple bu mu ne I slapped the chief mooy dama mbéj sàcc bi dama ko pes tànk loolu mooy slap I slapped the chief stretch stretch stretch dafa wuute ak scratch donc stretch mooy fudd mooy ah, fudd parce bi tàllal ko donc ñi dem ci gymnastique bi daanaka loolu dañ ko xam bu baax a baax exemple bu mu ne I stretch when I wake up mooy damay fudd saa su yeewoo dream mooy gént dream dream dream oh I was dreaming yesterday last night démb ci guddi dama doon gént oh I had a nightmare gént gu garaaw laa am démb I had a nightmare nightmare ok was dreaming yawn ah yawn mooy bébli hmm, bébli I am yawning I think I'm tired oh not thinking I was working all day. I'm yawning right now. I think I need to go to sleep. I am yawning mooy dama maa ngi bébali oh dama sonn am tired